ci teewaayu sous ndimbal gu am solo jëm ci askan wi ñeenti maire yi yeewoo fii ci arrondissement bu Bambilor boole nañu seen doole ngir jàppale njiit réew mi ci xeex bi nga xamante ni mooy lëmbe suñum réew duñu def lu dul taataan kàddu yi Ngagne Diop de la commune de Bambilor. mooy sant yàlla ci fii nu daje tey muy place Malick Ba li tax mu tuddoon Malick Ba. du commune Sangalkam du commune Bambilor mais c'est la communauté rurale de Sangalkam Tay ñun ñoo daje fii lu tax ñu daje fii mooy dañu xam ne dafa jot ñu dajale suñu doole ñun ñëpp ci combat bi ñu jom ak combat yu jëmaat nekkaat suñu kanam moo tay. tey ci yu ministre des collectivités territoriales ci teewaayu meeru Sangalkam ci teewaayu meeru Jaxaay ci teewaayu meeru Tivaouane Polnyag. Niaga ci yu le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam ñun ñëpp jël nañ suñu doole bokk ndey bokk bay pour taxawal liggéey suñu gox derrière le président Macky Sall moo tax bi président jógee ne dafay xeex ci Covid bi mu instruire le ministre des collectivités territoriales mu instruire képp kuy maire ci Sénégal nous 557 collectivités territoriales du Sénégal et des 42 départements kenn ku ci ne nga xool la nga man nga jàppale askan wi nga xam ne nga administré. moo tax ñu nit ñu ne ñun buñ koy def it dañuy daje fii ci Sangalkam pour wan adduna naka nag fi mu ne nii kenn mënatul dem ak sa bopp ñun ñëpp dañu obligé ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi xàcceendoo dóorandoo pour que suñu quartier yi ñu defar ko ba kenn ku ci ne vraiment fañ la féetale lépp lu fay difficulté sa morom xam ko man ci ànd ak yow jàppale la ci loolu ci loolu moo tax ñu ut seede seede bi mooy le ministre des collectivités territoriales seede bi mooy le sous-préfet de l'arrondissement que décidé nañu ñun 4C yi organiser wu nañu di xàccee xàcceendoo di dóorandoo di ñaan population yi ñu jàppale ñu ci loolu ñu jàppale ñu ci pour l'intérêt des collectivités territoriales pour njariñu communes yi loolu nag moo tax tey kenn ku ci ne la nga war a jàppale askan wi ñu dajale ko indi ko fii tey ci place Mictic bu Sangalkam muy place Malick Ba muy wàllu gel muy wàllu dund muy wàllu lave muy wàllu thermoflash li nga xam ne sunuy doom dinañ ko soxla ci ouverture classe yi di ñëw moom la ñu dajale tey pour man ko jox le ministre des collectivités territoriales mu jébbal ko l'IEF de kam mu mën ko séddale école yi nga xam ne ñoo nekk ci commune 4C yi lii di dund ñu ñëw wan ko dund bi nga xam ne bi mu ñu envoyé ay courrier jënd nañ ko pour jàppale askan wi ñu wan ko naka nag nun kat si suñuy collectivité territoriale lii bokk na si li ñu jënd muy ceeb muy dawlin muy suukar muy ñeenti collectivité territoriale yëpp jënd nañ ko xamal ko naka nag boo demee neel président la mu ñoxoon ñu ngi cay jéem a def la nu man donc loolu ci seedewu kan muy le sous préfet de l' arrondissement fi ñuy daaneele mooy monsieur le ministre ñu ngi lay yóbbante ci président de la république ñu ngi lay yóbbante ci moom ngërëm mu amul app di ko sant yan bi diis na mbir mi metti na mais incha allah nekk fu mu gestoo dina nu gis ñu ngi koy gërëm bu baax ñun quatre collectivités territoriales ñu ngi koy sante nga xamal ka nak it ñun tay jël nañu engagement ñun ñeenti commune yi bokk ndey bokk bay di xàcceendoo di dóorandoo pour njariñu askan yi nga xamna ne ñoo nekk ci 4C yi découpé nañ ñu nag waaye xol yi mënuñu leen tàggaale nous sommes obligés di demander nak di ñaan askan wi ndax nak li ñuy def pour njariñu askan wi la di ñaan askan wi ñu jappalé ñu ci jappalé ñu ci pour fa ñu bëgg ag ñu mën fa ag loolu mo doon cadeau yi nga xam ne moom laa ne woon dinaa ko wax di ñaan ñëpp kenn ku ci ne boo gisee sa morom nga yéene ko la nga yéene sa bopp ndax loolu moo am solo bu dee cër yàlla moo yor moo joxe te ko neex la koy jox kon mais ànd bi nag si ñun la dépendre kon nañu bok ndey bok ministre bi nga xamanteni mo jité collectivité locale yi di Omar Gueye moom itam yëkëti na fa ay kaddu yu am solo ngir gërëm ñenti maire yi nga xamanteni ni boole nañu seen doole ngir jappalé njiitu réew mi dem na sax banan li mom fo jaar mu éggé ko njiitu réew mi duñu def luddul tatane ay kaddom collectivité territoriale du développement et de l'aménagement des territoires Qui ndaje mii député maire bu bu Bambilor ci sous-préfet bu arrondissement Qui ci teewaayu maire yi fi maire bu Bambilor maire de Jaxaay maire bu Tivaouane Peulh maire de Sangalkam ci teewaayu inspection de l'enseignement et de la formation ci teewaayu parents d'élèves Qui ci teewaayu chef de village pour ñu jébbal ma li nga xam ni moom lañu ñu dajale ñoom ñeenti maire yi pour jàppale ko président Macky Sall ci xeex bi nga xam ni mooy xeexu Covid 19. xam ngeen ni Covid 19 mu ngi ci dëkk bi Covid 19 amul benn réew ci àddina bi bu mu nekkul feebar bu doywaar la moo tax bi mu amee senegal président Macky Sall jël ay matuwaayam. jël ay décision ak ay dogal yo pour ñu jappalé ko ci bi couvre-feu mi ngi fi état d'urgence mi ngi fi muy wax ni nañu nous pour nous, respecter consignes du docteur yi joxé benn bi distanciation physique Manam di soroyante di baña di masque te bu baax dañ koy répéter. masque dafa war a muur sa bakkan ba ci sa sikkim mais masque warul muur sa gémmiñ rek rawatina nga koy jol teg ko ci sa suufu sikkim masque dafay muur distanciation physique boobu ak masque yi lu ñu war a wéyal la moytu jàngoro ji parce que jàngoro bu gaaw wàll la bi ci des mooy mu jël junni milliard jagale ko askan wi jàppale un million de ménages ku nekk mu am lu mu la jox ci ceeb ci suukar ci diwlin ci ay pâtes alimentaires jàppale entreprise yi nekk en difficulté jàppale salariés yi ñi doon ñi ñi nga xam dañuy liggéey ordonnance bi mu njëkk a jël pour loolu la mu wax entreprise bu ken licencier ken. jàppale ñi nga xam ni ñoo yor wérgu yaram ministère de la santé dina jot koppar yu bare nous profitons de occasion pour féliciter le ministre de la santé Abdoulaye sar Sarr ak médecins les docteurs yi ndax li président Macky Sall Santé, ñu koy joxe bi ñu bi président joxe ko awna yoon féliciter tamit suñu Mansour Faye ci liguey bobu wante bi président dafa wax ni mo xam maire yi ak collègue ak ak conseil départemental yi dañu wara duggal seen loxo ci mbir mi ñenti maire yi nek fi ci arrondissement bi ci quartier yi muy kam di Bambilor di jaxay di di Tivaouane peul ñag ñu ni ñom dañuy bolé seen doole yépp jënd ciép jënd diwlin jënd suukar jënd li nga xamanteni moy ay masque ay gel ay soo yoo xam ci la élèves yi wara a raxasoo joxe li ñu joxe ay thermoflash pour jébbal ko benn bi ñu jébbal ko askan wi muy bi en complément ci li président joxe ba pare benen bi ñu jébbal ko IF bi yor pour que le 2 bi ñu jublu muy le 2 juin ñu mën a ubbi classe d'examen ci anam yu rafet ñu mën a wax ni fii ci 4C day mën wax ni xelu ñii ñëw di indi seen doom ci jàng mën na dal ndax lépp am na masque am na gel am na saabu am na thermoflash am na ba mu doy sëkk donc loolu ñu ciy gërëm ci turu président Macky Sall ñeenti maire yi nekk fii di rafetlu it décision bi ñu jël ni dañuy boole léegi seen doole à partir de maintenant pour liggéey di xàccandoo di Dorando. loolu nak dina ko wax president Macky Sall ta xamna ni dina ci bekk ndax mom limu bëgg moy nit ñi bokku nday bokku bay liggey symbole li symbole la ndax waxna sank ni maire Bambilor mënon nako def Bambilor maire Jaxay mënon nako def Jaxay maire meru Peul Niaga mënon nako ko def Tivaouane Peulh Niaga maire Kam yem Sangal Kam def ko mais dañ ñi dañuy dajale li ñu am lepp te bare na de parce que fu ñuy wax 650 tonnes de riz loolu amna solo fu wax ñetti téeméer ak juroom ñetti fuk ak ñaaru euh, thermoflash loolu amna solo wax ñetti ak juroom ñaar fuk ay ñuy solo ci ci donc ci président ma ngi rafetlu loolu maire yi def di wax askan wi ni ñu japp ci liggéey dans l'unité et la cohésion pour que nous mëna mbass ci biir Sénégal génn ko ci adina waw lu am solo la ñu def le colo bi ñu def man en ma qualité de ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires ma ngi ñaan gox goxan yëpp def ko ndax lo dafa am solo Tëngéej man nañ ko def ñetti commune yi fa nek ak ville bi li nga xamanteni ni barni sendu Sendou sebi Sébikotane yéen man nañ ko def bloc def ko conseil départemental bi ngi def lu mu man muy ak président Souleymane Doy yenen gox yi tamit man nañ ko def en tout cas ñi ngi ci sen disposition pour jàppale len ci liguey Bobu, pour que au au finish mu doon lu ñepp di am ndam ndax buñu faté ni collectivité territoriale démembrement état la bu président Macky Sall defee lu béré béré béré ak gouvernement collectivité yi man nañu ñomi jël ci seen budget dugal ko ci biir loolu lépp ci askan yu la jëm.